Donc, comme je disais que c'est l'album de la maturité, c'est vraiment un album que tu peux écouter partout. C'est un album, on va dire, à dimension internationale. Et pour moi, c'est vraiment l'album de la maturité. Félicitations, félicitations pour tout le job accompli derrière à toute l'équipe Nyom On a vraiment une grande, grande pensée pour DJ Paul. Maintenant, Joy Waisan, tout le monde, Joy Loma. Bye, mais di ko ñaanal xam naa ne mu ngi ñaan de là où il est il est fier de là où il est il la wax encore une fois félicitations. ni ku ku disponible ma ko ay gars des films on a tourné euh, affaire yu bëri macha et aussi je félicite ton mari. Euh, damay féliciter tout d'abord ton parce que euh, gis naa. ni mu projet ci yow gis naa ni mu ko jaral gis naa ni muy def ci yow et je te félicite et damay lancer aussi un appel je demande à tout le monde commencer ci euh, journaliste yi ñëpp buñ fiy génn nañu jënd album parce que jàppale artiste jàppale artiste il faut vraiment loolu parce que Sénégal dafa gis ni artiste day day day liggéey lu bëri génne un album après ñu bàyyi ko te pour jàppale artiste il faut ngeen jënd album kon je vous demande tous commencez par man mii ah ñëpp tout le monde amul manager amul mon mari amul kenn na ñëpp jënd album ci merci. Euh, damay ñëw fii aa tant artiste mais aussi en tant que grand frère donc Oumy euh, c'est une de notre département balaa ñuy wax ay Sénégal ak yooyu ñoo suñu département doo ko wax donc euh, fierté la ñu am gis ko mu màgg en tant que artiste ba tey nekk te Lady Boss pour man fierté la pour le département de Rufisque fierté la aussi pour le Sénégal album bi pour moi ça vient à son heure c'est possible bu mi dafa war a nekk artiste international bu ñëpp di gis bu ñëpp xam parce que am na potentiel bi am na sens artistique bi am na créativité bi en plus elle est bien entourée donc mooy nuyuwaale sama waay a lakkal Sénégal bu parce que ñi ma xam sama parcours xam ne il a participé à tous mes projets donc mu nekk un frère nekk un ami donc bu paree di soutenir bu baax a baax a baax suñu sœur donc di la di la féliciter di wax aussi di réitérer li saa wax na ñëpp dem jënd ko jënd. ñu dooleel artistes yi may leen parce que cet album mérite un très très très très très grand très très très yokk ci grand soutien. merci beaucoup donc bon bu ñu Et euh, je suis aussi soutenir sama sister OMG euh, comme ni ko waxee comme ni ko album bi waxee possible donc euh, man li ma gën a neex ci album bi mooy le mu am déjà public bien défini ba pare parce que yéen dem public bu nekk loo xamante ni euh, dama jàpp ni courage mooy tax ni def ko osé et loolu moo waral tey jii Euh, amin bi tudd possible donc ñu koy dañ koy ñaanal fi mu bëgg a egg ci album bi yàlla eggale ko fa ba pare ñun ñëpp ñu jàppale ko mu egg fa c' très important et quand je dis ñun ñëpp je plus de presse parce que presse bi tey jii nii il faut ngeen xam ni am ngeen rôle bu mag boo xamante ni si yéen ngeen ko am ci artistes yi ci acteurs yi ci ñëpp nga xamante ni si ñu ngi fësal seen ay mbir donc tey jii nii c' très important nit boo xamante ni si mu ngi jël. dara di ko mettre en avant yéen tamit ngeen ñëw jàppale ko ci loolu et tey jii nii gàcce garaam fees nekk fidèle euh, bu baax a baax. merci yéen moom. waaw mooy xam nga rek nekk ci parce que umu laa wax parce que AMG bi dafa nekk koo xam ni. dañu am fierté bu mag ci moom nekk góor nekk ci hip-hop bi yombul bi ci évoluer waxuma laa jigéen ñu gis fi mu tàmbalee ak fi mu egg tey vraiment dañ lay wax bravo dañ lay wax bravo encore une fois dama bëgg ngeen tàccu kii parce que gaynde la hip-hop ku ñemewul ku amul fi ku gëmul sa bopp dëgg ñoo ci def parcours fii nga egg nii yàlla na yàlla def nga egg foofu gën a kawe raay yi gën mag ci musique ci àdduna bi yàlla na la ko yàlla jox nga ubbil ñu ko Sénégal man loolu laa lay ñaanal parce que jox nga ñu cër liggéeyal nga jigéenu Sénégal parce que hip hop dañu jàpp ni yëfu góor la mais en hip hop amul góor amul jigéen jàmbaar la xam nekk ci bay sa waar li nga moom nga jël ko te loolu nga def tey nii jomb la di nga am lu ëpp lii bu soobee yàlla wax dëgg yàlla ñëw woon sax pour wax dafa ñëwoon rek teew pour wane ni mérité na lii mu am tey mérité na lu ko ëpp ci turu hip hop Galsen yëpp dama lay wax ni la ñu fier ci yow la ak seen génération occasion bi rek lañ am pour wax ko cette nouvelle génération bi nga xam ne tey ñoo nekk au devant de la scène suñu fierté la ñun nga xam ne ñu ngi fi woon depuis trente ans dañ daan wax hip hop Galsen bala ñu koy wax ni am na existe na am ay jeunes yu juddu fekk ko fi di ko déglu di ko def ñoo ba mu leen fay egg nañ ci loolu mooy génération bi nekk au devant de la scène man boobu je suis hyper fier et ci ñu ñu nekk ak fi ñu nekk yal na leen yàlla yóbbu gën a kawe su lii amul woon ça veut dire que ñun liñ wax ci hip hop bu dëgg ñoom ñooy la nit mën na ci nekk jëriñu si te du nekk ni drogue ngay nekk wala ku bëggul dara wala ku tekkiwul dara yal leen yàlla fay yal na leen yàlla gën a yóbbu ci kaw hip hop daal seen folaay musique Sénégal folaay tey jii nii lii ah maa ngi bëriwul li ma ko gisee conférence de presse bu toll nii bëriwul de ci góor sax bokkuma laa jigéen man moom kii dama ne sama njaboot la bokk quoi vraiment kontaan na mënuma am lu gën a rëy nii defal nga ñu ko yàlla na la yàlla gën a fay. salaamaaleykum tout le monde donc c'est un immense plaisir pour moi d'être là ce soir di trop et j'en profite di nuyu fi teew acteurs culturels yëpp. bon je pense que damay rebondir fii suñu grand matador tëjee tey képp ku gis Oumy fierté ngay am ci moom ndax ni ko waxee euh, milieu culturel aduna tey dara yomb te nit ki boo ñafewul doo am dara ñafe boobu dafa nekk ci moom bu da koy gis ci évolution liggéeyam tey le plus important fi mooy peut-être waxee di fa mooy bu ngeen xoolee évolution bi mu tàmbalee ba fi mu da ngay gis ni étape par étape mu ngi gérer carrière am c'est pas une artiste boo xamante dafay tëb di dalet am na benn plan de carrière mu ngi évoluer am na fu ñu fekkoon musique bi mu ngi participer di fa dolli li naan di apporter pierre à l'édifice te tey je pense que la culture sénégalaise ñun loolu la ñu soxla parce que tey je peux dafa bokk ci valeur sûre de la musique sénégalaise parce que tey wane na tey muy distinction wala ci lu muy manti doon da gis ni a chaque fois elle est au devant de la scène tey bu ñu ba mu proposer un album international da xam ni kii xam na ni li war a apporter dara ci culture sénégalaise bokkul rek ci tëgg ci benn ruux e nekk fii wala waa koñ bi tàccu la tey li ñu war a def mooy nan lañ mën a fusionner nan lañ mën a góorgóorloo ba jaay suñu culture ndax bu ñu jaayee suñu culture mooy jaay suñu destination moom mooy développé yeneen secteurs yi nga xamante ni yëpp tey structure daf leen di suqali donc man teewuma en tant qu'artiste dama teew en tant que brother cause tey kii sama real sister la ma sister in love merci so merci jaajëf jaajëf